salaamaaleykum euh, directeur de l'emploi Pape Modou Fall euh, ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax di la fekk fii nga xamante ne mooy sa bureau euh, di la décerner titre bi nga xamante ne mooy le titre de l'homme de l'année euh, titre bi nag c'est toute la rédaction tous les travailleurs de Référence Actu ak Référence TV ñoom ñoo la décerner le titre ce titre de l'homme de l'année defuñu ko rek parce que tu t'appelles Pape Modou Fall mais dañ ko def parce que gis nañ liggéey bi ngay liggéey au niveau de la direction bi nga xamante président de la république euh, président Macky Sall dénk na la ko nga koy liggéey si la direction de l'emploi waaye it euh, liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def ci lii ñuy woowee xëyu ndaw ñi euh, ci pour l'insertion des jeunes gis nañ ko gis nañ it fi nga dëkk di Diourbel liggéey boo am solo bi nga fay def pour le compte politique bokk benn bokk yaar dafa liggéeyal bu baax a baax a baax président Macky Sall loolu yëpp tax na ñun à l'unanimité au niveau de travailleurs ñu décerner la li nga xam ne mooy le titre de homme de l'année mais nag euh, waaw DG mhm. li sentiment de mbégte laa ci am ak contentement mhm. parce que ñii ma àndal di liggéey mhm. samay rakk lañ may samay nawle lañu ma dénk leen kër ñu fay liggéey liggéey bu mucc ayib te nag lii nii du man maa ko xalaat Mm-hmm. ñoom personnel bi ñoo toog. Mm-hmm. xalaatal ko seen bopp. Mm-hmm. woo ma. ni ma ñun on a eu à travailler depuis le premier janvier. deux mille vingt deux. le trente et un décembre deux mille vingt kilifa gu nekk ñoo na fa ay ministres ñëw nañ fa. ay DG ñëw nañ fa. ay DAGE ñëw nañ fa. homme politique bu nekk ñëw na fu muy góor di jigéen. mais personnalité bi leen gën a marqué. mooy Modou Fall. yàlla def nag dogal. ngay sama xarit. ñu bokk Diourbel parce que man maam Seera Fall laa yaakaar man Diourbel laa dëkk sama baay Diourbel la juddoo donc mbégte laa ci mën a am ak sentiment ba pare ma gisa nag ngay liggéeyal Macky Sall liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la tey ñu bari tey bu ñu amee sañ-sañ taxaw naan Macky Sall am na droit am beneen mandat ba nga koy wax kenn wax ko tey nag ñeme na ku nekk taxaw di ko wax man nag man dama far ba ñëpp xam ne Macky Sall laa faral parce que li tax mu faral ko day liggéey réew mi ba pare boole ko yar ak teggin donc su ma gisee ku ma ko bokkal koo xam ne day assumé comme man ni may assumer jàpp ko rek laa mën a def donc sama njaboot bu ñuy ñëwee nii dañ la koy décerner man maa la koy jox ci xol bu sedd di ñaan yàlla nag ñu koy joxante at bu jot mu dund ba doon yoo xam ni heure bi day fekk ñu lay wax monsieur le ministre ñu hmm. lay fekk sa bureau Mm-hmm. parce que nit ku nekk tamit am nga sa yéene. Mm-hmm. tey directeur de l'emploi nga. Mm-hmm. mais tey. ki lay ñëw di la décerner lii bu sañoon. sa post yi day gën a yokk rek. donc li nekk sa xol yaa ko xam. daal ñu lay ñaanal ci 2023 bi nga gis ko. amiin amiin amiin jërëjëf. amiin merci. voilà maa ngi leen di remercier tout abor di leen soo souhaiter une bonne et heureuse année 2023. 2023 euh, nekk atu jàmm ak salaam. atu yokkute aussi ci référence acti suñ borom bàyyi leen fii dafa leen ay xéewal dafa leen tawfeex ju yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ci at mii ñu jëm muy 2023 waaw ñuy ñaan aussi euh, structure bi ngeen tijji vraiment muy liggéey aussi liggéey na ci année 2022 bi liggéey mucc ayib wax dëgg yàlla kenn ku ne gis na seen production audiovisuelle yi kenn ku ne gis na seen plateforme bi ni muy partagé en temps réel actualité ak information yi kon je pense que dañ leen di pousser aussi ngeen continuer sur cette même dynamique suñ borom taxawu leen yokku leen ba li ngeen bëgg aussi ci référence actu seen plateforme bi suñ borom mën leen ko defal donc message boobu dama la ko envoyé te envoyé ko toute l' équipe de référence actu xam ni c' est ak mbégte ak contentement lay recevoir donc diplôme bi a dëgg yàlla am ci fierté di ko partager aussi ak ñëpp ñoo xamante nii ay collaborateurs lañ en commençant par le président de la République Macky parce que moom moo ñu jox opportunité boobu. en passant par le ministre bien bien sûr Dame Diop donc nga xamante ni c'est un frère mais aussi avec tout le personnel de la direction de l'emploi bi nga xamante ni ñoo nekk les collaborateurs directs ñuy ànd ak ñoom di liggéey ak képp kuy jàppale Pape Modou Fall ci lu mën a doon donc en retour euh, diplôme bi ngeen ñu jox aussi jàlloon nañ leen ko parce que tout simplement seen mbégte aussi mooy suñu mbégte kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax ci lii quoi merci beaucoup asalaamaaleykum mbokk internet yi suivre référence actu seen site référence actu ñu ngi leen di dalalaat ci seen plateau spécial plateau spécial bi nag euh, plateau fin d'année la euh, waaye it fa plateau buy tijji at bu bees bi plateau bi nag ñu ngi koy def ak ki nga xamante ne mooy Pape Modou Fall Pape Modou Fall mooy directeur de l'emploi nekk responsable politique euh, bokk ci nekk di jiite parti dëgg moo wóor euh, bokk ci Benno Bokk Yaakaar euh, Pape Modou Fall moom la référence actu ak référence TV tànn def ko seen homme de l'année monsieur Fall ñu ngi lay duyu waaye ñu ngi leen di fay bu baax di leen remercier aussi ci édition spéciale bi di leen souhaiter aussi une bonne e heureuse année 2023 2023 nekk atu jàmm ak salaam atu yërmaande xéewal donc atu réussite aussi pour euh, référence actu ak yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ci biir référence actu yëpp suñ borom defal leen jàmm defal leen tawfeex defal leen xéwal yu bare bare bare bare amin euh, monsieur Fall euh, yow ñu tànn la def la homme de l'année au niveau de de référence actu te mm. loolu ñi fay liggéey ñoo ko ñoo ko décidé mais le le le directeur di Mame Goor Diazaka d'accord ci ànd ci kontaan ci. Hmm. Euh, ban ban ban ban réaction nga ciy am. voilà mbégte rek contentement vraiment nekk euh, fierté ci ñun mais aussi nekk lu ñuy gën a encourager di ñu gën a ñaax parce que euh, bu ngeen toogee wax dëgg yàlla yëguñu tinuñu franchement ngeen choisir ñu mu am consensus. ñëpp accordé wu ci comme ni nga ko waxee ba ci directeur bi maanaam góor ñëpp accordé wu ci vraiment pour def ñu om de l'année loolu du ma def lu am ci mbégte am ci contentement di leen remercier en retour di di di saluer d'abord initiative boobu mais aussi di leen remercier yéen aussi ci qualité travail bi nga xamante ni def ngeen tout au long de l'année 2022 parce que kenn ku ne xam na ni 2022 quand même référence actu mhm. wane na ay markam à travers euh, sa plateforme référence actu à travers aussi studio yi ngeen aménagé. ak mm-hmm. euh, outi yi ngeen metre euh, donc a disposition équipe bi ak euh, outils yi nga xamante ni yéen ngi koy utiliser pour propager l' information. en temps réel. Mm-hmm. donc loolu aussi vraiment nekk une innovation te ñu koy ñu leen ci jaajëfal. Mm-hmm. donc kon yaakaar naa ni duñ def lu am ci am contentement xam ni. peut-être au-delà de collaboration bi maanaam entre référence actu yi ak euh, direction de l'emploi mais aussi euh, collaboration bi bi am entre man mhm. Pape Modou Fall ak yéen équipe bu Mame Goor Diazaka ak ñi fa nekk ñëpp mhm. donc vraiment maa ngi leen ci sant di leen ci remercier bu baax en retour may jël donc euh, diplôme boobu de homme de l'année di ko delloowaat ci ñi nga xamante ni ay collaborateurs lañ moo xam ñi nekk direction de l'emploi moo xam ñi ñuy àndal sur le plan politique moo xam aussi euh, képp koo xamante ne ni yaa ngi ñu taxaw wala nga ñuy jàppale mais aussi di ko jël d'abord di ko teg ci loxo kilifa gi muy le président de la République Macky Sall jaarale ko aussi ci ministre Dame Diop ñoo xam tey man nañ ni si je suis là aujourd'hui c'est parce que moom moo proposé président de la République bañ mën a def yenn résultat yi donc ba li lépp di mën a am kon en tout cas sant nañ bu baax ñu ngi sant yàlla daal ñun tam ñu ngi lay ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi ci correction bi nga wax ak ñun à chaque fois et aussi toutes les leçons ya nga xamante ne mm-hmm. jëlee nañ ko ci yow à chaque fois ñu rencontré la mm-hmm. ñu ngi la ciy remercier di di ci kontaan bu baax a baax mais bu ñu ñëwee ci ci ci at bi ñu génn 2022 mu nekkoon benn une année charnière mm-hmm. euh, du point de vue politique mu am ñaari ñaari élection yi fi am ñu xam ne année électorale nu muy perturbé mais mm-hmm. ñu gis les résultats yi sa sa sa sa sa kii def sa mm-hmm. euh, direction def avec mm-hmm. ak xëyu ndaw ñi nan nga mun a allier tout ça parce que loolu sa ça ça m'interroge beaucoup allier l'aspect politique parce que gis nañ engagement bi nga am à Diourbel à comme à à à te battre ak aussi les résultats yi ngay parvenir à à avoir. Mm-hmm. Mm-hmm. ci ce secteur. Mm-hmm. comment <laughs> noo koy. voilà donc loolu la boo gisee moi je pense que style de management la parce que xam nga euh, directeur direction de l'emploi équipe la. ki nekk ci kaw mooy le directeur de l'emploi mais aussi dafa am ay division am ay bureau am ay agent yoo xamante ni kenn ku nekk. techniquement am na compétence yoo am par rapport a domaine bi nga nekk quoi ça veut style bi mooy dañuy xool nu ñuy responsabiliser les agents compétents yi nga xamante ni ñu ngi fi te mën nañu liggéey liggéey bi. sur le plan technique. ñu responsabiliser leen. parce que moi je me toujours di que boo jiitee benn structure boîte wala lu mën a doon wala une entreprise donc du yow yaay liggéey liggéey bi en général yow kese kenn nit mënul dara lu mm-hmm. kenn man mbooloo ko ko dax donc lii ñoo fait la force mm-hmm. cela veut dire que donc stratégie bi mooy le travail d'équipe stratégie bi mooy déglu ñëpp stratégie bi mooy responsabiliser ñi nga war a responsabiliser. Mhm. de telle sort que tâche yi nga war a def donc bu fekkente ne nii am na ay agent vraiment yu ko mën a def nga bàyyi la ñu def ko. def ko donc je pense que loolu moo lay alléger moo lay permettre yow nga nekk un superviseur. Mhm. moo lay permettre nga nekk un manager nga xamante ni boo waree bu ñu waree jël yenn décisions yi rek. Mhm. ngay intervenir donc à ce moment là la facilité. ban ban bilan def ci. liggéey bi sur le plan professionnel. Euh, année bi. Euh, voilà dafa nekk aussi année boo xamante ni comme ni nga ko waxee activités yi sur le plan politique mais aussi bari woon na sur le plan professionnel parce que bu ngeen rappelé mhm. donc le avril deux mhm. président de la république lancé woon le programme d'urgence pour l'emploi et pour l'insertion socio-économique des jeunes, mmh. ici à Diamniadio, au niveau du centre de conférence euh, Abdou Diouf. waa kay jërëjëf DG eh, ginnaaw gis nañ eh, liggéey bu rafet bi nga def au niveau de la direction de l'emploi ak eh, yëpp yi nga xamante ni mottali nga ko ci te mu yemook li président Macky Sall bëggoon ci liggéey ndaw ñi mooy muy xëyu ndaw ñi mais DG li ma bëgg xam mooy euh, fan nga teg ci yenn critère ci yenn base nga teg ni le président Macky euh, dafa war a am troisième mandat parce que loolu aussi il faut nga leeral ko askan bi parce que bokk nga ci njëkk ci ñi nga xam ne ñoo njëkk euh, proposer la troisième candidature du président Macky des travaux du cadre de concertation sur le processus électoral. 2018 voilà décembre 2017 février. 2018. ci biir rapport général bi nii ci biir waxtaan yi. ñu ci doon waxtaanee euh, ci ñu ñu ci doon waxtaanee ñu réunir ci taamu parce que y' a opposition y' a majorité y' a non aligné y' a administration. Mhm. ñu ne woon bu ñu bañee xam nga 2018 ça veut dire que boobu président Macky Sall gagné amagul mandat 2019. Mhm. ñu ne léegi. ñëpp reconnaître nañ ni président Macky Sall mën na présenté waat vu la constitution parce que tout simplement le mandat de sept ans constitu euh, conseil constitutionnel accepté wu ko woon. Mhm. et que on a un nouveau mandat de cinq ans. et que si on parle de mandat on parle de deux mandats de cinq ans. Mhm. en lecture de la constitution actuelle. ñu ni est-ce que duñ dugal disposition transitoire mi ngi nii ñu ni est-ce que duñ dugal disposition li ma lay wax nii xam nga. décembre 2017 février 2018 est-ce que duñ dugal disposition transitoire ci biir constitution bi pour verrouiller complètement et définitivement mandat yi nga xamante ni buñ ñëwatee période bii comme période bii débat am mhm. ngeen ngeen dugal ko ñu ñu ñu dugal ko ñu ni chez moi ma ñu may déglu xam nañ ñu ngi Aïssata Tall Sall ministre au temps bindal benn article boo xamante ni day dem ci disposition transitoire yi pour que ñu ni président Macky Sall bu bokkee deux mille dix bu gañee dootul mën a bokkaat. Mhm. ça veut dire que ko kon ñun ñoo nekk ñëpp d' accord nañ ni président Macky man mën naa bokk après. deux mille mhm. deux mille mais mais pour déjà. mais pour aller mhm. parce que suñu temps daanaka li ñu jeex. pour ce que président Macky Sall lii ñu ànd ak moom. Euh, parce que yow Baye Fall nga. yow nga say benn kooku kàddu si suñu réew. kàddu. fi mu toll. Mhm. ak li mu am impact si nit est-ce que président de la République mu ngi te xam naa ni dama lay fay dama la fay jiitu mais non cadre de loi je d'accord de loi. Mhm. mais si suñu réew si suñu sociologie. Mhm. est-ce que dimbali yéen ñi ànd nañu dimbali ko. du respecté loo ko kàddoom te si si seen biir yéen yëpp pour fa candidat bu yeggali bi commencé. waaw déjà loolu duñ ko accepté man déjà du ma accepté loolu. man li may accepté mooy qu'on continue avec celui qui est déjà là. kon kon pour lu kon kàddu kàddu président jarul président kàddu Massamba kàddu Mademba laa wax. man li mooy le président de la république le président a à un deuxième mandat de cinq parce que ça c' est la constitution qui le dit muy benn. li ma koy conseillé mooy pour que li mu commencé ci réew mi man koo àggale. Mhm. man jàpp naa ni moom dafa war a déposer candidature. xam nga tey père de famille. wolof njaay kilifa sax ci këram. Mhm. dana am fu muy toll dañ naan il faut laisser laisser ngay bàyyi ba bàyyi. Mhm. parce que amul benn kilifa ci àdduna boo xam du jàpp bàyyi parce que ñi nga àndal say naw la leen déjà un ñi nga ñi nga àndal say naw leen mais surtout ñoom bu seen yéene nekkee yow nga àggale liggéey bi nga xamante ni sumb mhm. mais da nga ko war a àggale. da da nga ko war a àggale. nous sommes tous d' accord que njiitu réew mi franchement teg nañ ci trajectoire boo xamante ni bu ñu ko toppee. Mm-hmm. avant deux mille trente cinq sax le pays mën na nekk un pays. et vous êtes prêts pour le combat. voilà nous sommes prêts pour le combat nous sommes prêts à l'accompagner man mm-hmm. moom li ma wax du dañ. Mm-hmm. fu nekk laa ko waxee gëm naa ko. te gëm naa ni war naa mën a bokk te li gën ci réew mi mooy mu bokk parce que bu bokk mooy permettre à ce que dynamique bi nekk déjà ñu bañ koo kase li ma wax c'est profond bi nekk ñun. au niveau de la majorité. waaw ñu bañ koo kase. te pour bañ koo kase il faut moom mu accepter. li ñun ñu bëgg seen biir amul keneen. il faut non j'ai pas dit ça. dama ne ñun dynamique bi nekk pour ñu bañ koo kase. Mhm. il faut moom mu accepter li ñun ñu bëgg. Mhm. ñu nekk ànd ak moom li ñu bëgg. Mhm. mooy parce que nous sommes en démocratie. li ñu bëgg mooy moom chef de parti la. nekk ci coalition. li ñu bëgg mooy moom mu présenté waat. mu nekkaat seen kàddu voilà directeur suñu temps jeex na. je sais que ni am na lu bëri yu ñu war a wax te wax ko mais on prend rendez-vous. d' accord di leen di leen waxtaan ak yow yow comme ni nga wax suñu partenaire. Hmm. privilégié nga. suñu hmm. suñu suñu suñu am ressource nga parce que bu ñu ñëwee defal yow émission après ñun on on prend des leçons en même temps quoi. Hmm. donc euh, directeur temps jeex na ñu bàyyi la nga sàggoo. waaw jërëjëf di leen remercier di lancer un message rek képp koo xamante ni daal am nga yéene ci président de la République jàpp la génn taxaw ko mu déclaré candidature mu dem déposé bi conseil constitutionnel mu nekk candidat parce que loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu réew mi parce que teg na réew mi ci trajectoire boo xamante ne nii en tout cas muy man du sama mor du morom du leen bu ñu ko toppee Sénégal la ñu nekk un pays te un Sénégal pour tous boobu mooy wax je pense que dana nekk réalité parce que ñu ngi koy wane aussi bien sur le plan social sur le plan de ses réalisations ci enseignement supérieur la carte est élargie ba ki dem rek annoncé nañ deux nouvelles universités Sénégal oriental Matam mm-hmm. les coordonnateurs sont désignés les centres de formation ñu ngi koy yokk pour niveau de chaque département ISED yi ñu ngi ko yokk les espaces numériques ouverts de l'UVS ñu ngi koy defar la mobilité ñu ngi koy faciliter deuxième phase du TER bi lancé nañ ko les ponts les autoponts les ports et cetera yooyu yëpp daal dynamique boobu daal wax dëgg yàlla bu ñu ko toppee Sénégal dina changé. dina changé incha allah ñu ngi leen sant di leen gërëm. encore une fois sant Mambo. Mm-hmm. di ko remercier aussi ci disponibilité am ak yéen aussi seen disponibilité. ñu ñaan yàlla defal ñu jàmm comme ni nga ko rek suupa. danañ def benn émission ci plateau. incha allah incha allah incha allah incha allah mu nekkoon Pape Modou Fall suñu suñu de l'année. mu nekk ko nga xamante ne mi ngi mi ngi am impact ci société bi mu ngi am impact ci liggéey bi ñu ko teg ci loxoom muy euh, wàllu xëy bi euh, te mu yore xëy ndaw yi projet bi nga xamante ne kii di président de la république fonk na ci loolu de am na ci yaakaar pour euh, sukkali Sénégal ak yu bari mu nekk responsable politique nekk jiital parti dëgg moo wóor te di milité fële ca Diourbel moom moo nekk suñu homme de l'année mu nekkoon suñu plateau spécial fin ne ñu doon ci. waxtaan ak euh, Pape Modou Fall mbokk internet yi ñu ngi leen di dig daje beneen jotaay ak yeneen yi waxtaan.